daan Robert at Modou Sabala Modou Sabala grand Sabala Modou Sabala at Robert Douziba Robert Douziba moo ngemb moo ngemb dalde bi wala nga na ngemb fulaade bi daan Robert Douziba at Modou Sabala numéro 2 Robert Douziba Robert Doussouba ak Modou Sabala saan Robert moo ñu woon ginnaaw moo ngeem moo ngeem bu fulaado bi saan Modou Sabala lañ jàkkaar lool ñaari xale yaa ngi noonu si géew gi ami kolle Robert Doussouba Modou Sabala jàppante nañu ku nekk nga jàpp Robert Doussouba dugal na hypercule Robert Doussouba dugal Sabala Robert Doussouba ak Modou Sabala xale ñoo nga ndege ñante teewa ngay yootu ngeem kii jàpp na ci kaw da koo bëgg a takk waaye dafa bañ eh laam Robert Douce ba taxawal na na ko da kaa taxawal tax sama xel dem si Papa Ngane sox sox eh waay eh waay Khalil ay waay kii bu taxawaloon Khalil waay ay bu taxaw bu taxawaloon xalil fan ay bu taxawaloon xalil fan la xalil ay waay bu taxawaloon xalil fan la jëm dana neex ndeysaan xale ba dem làmb di tiit di am lu may ragal xaaral musu wax dem làmb di am lu may ragal yàlla xam na loolu du ma mbëru pët ay sixième combat ak cinquième damay ju mu fees dee nañ ma jox sama morom yi nañ ma jox mais Robert Dioussouba parce que Robert Dioussouba suma turandoo la suma maam. waxal waxal maa ngi ci combat bu mag boo xamante ne daa daa da doon ñoom Fodé Dioussouba. waaw Youssouba sama jarbaar la maa jekk samay ngemb dama ko man dama ko